merci beaucoup madame la présidente monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal di nuyu sama collègue député monsieur le ministre suñu xel dal na ci li ñu dégg fii yëpp say mbokk béral nañ na am na am nga foo nekkoon def fa résultat yu waral ñu andi le fi tay kon am nañ yaakaar formation professionnelle dana gëna jëm kanam rawatina nak bi ci président de la république défé li ci war ba nga xamné ne Sénégal gépp ci faut lay les ba nit ñi di mën jariñu ci formation professionnelle di ci am ay emploi di génn réew mi ñu leen ci monsieur le ministre nous ngi lay Nous di félicitons féliciter parce que en 2017 dañu avons sa natango bi nga remplacé que dans le département de Linguère dans la commune de Dara dañu bëgg centre de formation professionnelle nga tenir ko ci sa budget boole ko ci ñuy ñaan rek ci 2020 bi monsieur le ministre mu nekk say priorité beneen bi mooy bëgg nañ tamit suñu jigéen ñi nekk foofu mooy suñu mbokku naar yi monsieur le ministre boo amee loo leen mën a jàppale balaa mébét bii nga am di egsi ndax ña ngi fay def liggéey bu am solo boo xam ne seeni loxo lañ koy defee monsieur le ministre bëgg nañ nga jàppale ñu ci. suñu mécaniciens yi daan nañ dem dans la euh, dans le département plus précisément Linguère di def ay formation di jógee Daara di dem Linguère mécaniciens di def ay formation ñaanoon nañ ministre bi ba mu naroon ñu euh, jox benn euh, ay ñu fa war a ñëw biir daara former mécanicien yooyu far euh, ñu remplacer ko rawatina machine yi mu waxoon ne daf koy may tamit suñu tailleur yi monsieur le ministre bëgg nañ dossier boobu tamit nga xoolaat ko di wax tamit bëgg nañ huiliers yi dans dans la commune de Dara parce que dafa polariser village yu bëri yo xam dañ fay xey ñew di def sen ségal yi monsieur le ministre bëgg nañ nga dimbalé fofu jigéen yi. am nañ ci yow yaakaar lool parce que ni nga défé sa programme gis nañ né tenir nga compte ci problème yépp yi nga xam sa secteur mi ngi ko ëmb du ñu def lu may di la ñaanal nga réussir ci euh, ci année bi nga jëm lépp loo mébét fii yàlla dimbale nga def ko parce que boo ko defee rek dinañ defaat beneen pas bu ci kanam ci formation professionnelle